waaw d'abord damay sant yàlla parce que am na loo xam ne yàlla rek moo ko mën doomu aadama mënu ko donc euh, te yàlla lu mu na moo am donc euh, lii nii yàlla bindoon na ko bu yàgg te ñëpp ci programme suñu borom la ñuy dox may may am fierté comprendre ci koo xam ne ci sama gañwal la bàyyi ko deret bi daw ci man moy daw ci mom mu xam ko nak ba pare diko défendre bu baax xam na ni mo yor le flambeau donc euh, mu ngi koy ñëfé bu baax euh, il a osé relever ce défi yàlla dimbali nañu ba ba def na ko kenn mënatu ko weddi donc euh, dina rentrer dans l'histoire que c'est le fils de John Sek, Wali Balago Sek, qui a osé euh, d'or Bercy ci moment yi et puis xoolal bi mu war a jouer grève bi am na ndox maa ngi envahir euh, la capitale mais terewul ki ndimbali suñu borom yëf yi ni ñu ko bëggee woon sax kawe na suñu njort donc loolu moom yàlla rek moo mën loolu ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm li gi des nag mooy am na yeneen defi yoo yoo xam ne euh, dépassé na Bercy te am na nañu yàqin ak gëm-gëm ne que dina ko relever incha allah bu wàccul yoon nit itam bu defee lu rëy da nga koy da koy nangu li mu def man defuma ko donc dëgg man la il a osé mais dafa fekk rek euh, suñu borom bu xasee ba tracé fi mu tracé rek ngay jaar. tu comprends donc nañ sant yàlla te moom mu xam ne gëm na nag yàlla defal na ko lu rëy te mu xam ko te mu jaamu ko. def yooyu ah, rek nekku fi xam nga nag bu fekkee ne nit dafay bëgg dem. ñii ne ko doo dem ñii ne eh, affaire bi sax du am et cetera et cetera ñii nga xam ne bon dañuy koy wax nii rek ci ko waaye ci suuf yéenewuñ ko genre def yooyu yooyu lay wax parce que loolu moom di fi jóg ba yomal am donc dañuy koy encourager rek bëgg nag mu mu ci bàyyi xel am na ñoo xam ne bu ñu sañoon du bouger mètre am na ñoo xam ne dañuy ñëw di wax nii rek mais ci suuf noo xoolal waxuma la mètre mais bu ñu sañoon du bouger sax genn wàllu mètre te loolu yëpp il faut que mu jànkuwanteel ak ñooñu sama papa daan na wax naan que noon bu réglé moo ma gënal soppee bu dof xam nga mais boo ko xoolee wax bu am sens la et ci beneen sens donc moom moo. war a xam ne ku baax dina ñëw ku dëgg dina ñëw kàccoor dina ñëw saay-saay dina ñëw euh, kuy wax dëgg dina ñëw ak ku ko bëgg ngir yàlla rek te yàlla tax ak koo xam ne nii euh, day wut si lu mu seeñu donc euh, tout les moyens sont bons pour mu am lu mu seeñu قلنا ترى فاتية فاتية والله الناس يلا يلا نقول نلبقهم نيب